émission nous sommes avec les œuvres de Jeunesse Couture. Aïcha. bon macha allah rafet na trop. xam nga li ma ci gën a marqué. Ah, ah. gars yi jaayu ñu li nga xamante ne mooy suñu baax. Mhm. taaru africain la ñu wane fii. des tenues africaines c'est très joli. rafet na trop macha allah. mais est-ce xam nga am na ku des. keneen. am ku des ku nar a fii. waaw Aïcha wol ma ko ma xool yàqal. lay xaar dikkal. ak ma <laughs> <laughs> xoolal loolu. ay li la. të të të të ay lii la la. waa lii la la. ah c'est très stylé Aïcha. c'est très joli. oui ouais. c'est très joli. waouh. quelle élégance. bien sûr. tàccu leen bokk tàccu leen bokk s'il vous plaît. Et je vous rappelle que nous sommes toujours avec des jeunes structures. Aïcha. ñoo ko gisandoo ah. rafet na trop. macha allah. kontaan naa ci de. 4 mannequins. waaw. 4 très belles tenues. waaye rafet na trop ah? waaye deuxième passage baa ngi ñëw. mu ngi ñëw ci kanam. waaw mais Aïcha. Eh, est-ce que gis nga tenue yi ni ñu mel. gis naa ko. waaw dama ne man la may séenale lan la. <laughs> waaye Aïcha. voilà. Eh, jeunesse couture seen yaram tàng Ah, Taciel Bogoy. Taciel Bogoy, bien sûr. dafay féexal xol da lay war yoon nga xam fi nga féete mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul dafay féexal xol da lay war Aïcha je voudrais tous les mannequins ñoom ñu ñëw bi jeex na bu desee beneen tenue ma ba léegi ma jël doyaloo gu ma de bu amaatee beneen mannequin ñu daal di jël ba léegi ñu doyaloo gu ñu su fekkante ne également kooku moo nekkoon dernier mannequin bi mannequin yi ñëw en file indienne Zézé. waaw. jeunesse coutus pareegul de. pareegul. nee na am na ay jigéen yu ñëw. nañu ñëw. loolu <laughs> laa yàkkas ci dama ci kontaan dafay dundal bët teg si nag. tey waa Pikine ñoo xewle. ñu ne de. lépp lu nga xamante ni talent la fii ci Pikine. Mara Thiam daf leen ko fas yéene woon incha allah. Aïcha. gi xam nga la may jox. Pikine positive. <laughs> parce que tout est positif rafet na trop macha allah. voilà. ay topp sa ginnaaw ba léegi. Ah. Ah, maa ngi topp sa ginnaaw. dañ leen di xaar. ah, ah d' am na yeneen yeneen yu ñëw. yi ñëw fii. ah loolu nar na neex. waaye balaa boobu. laata ñuy ñëw. waaw damay <laughs> maa ngi yow. maa ngi kontaan de. damay daal di xoolaat keneen. waaw est xam nga lu ma attiré ci yow sa rouge macha man la ragal wala yow la ragal. <laughs> dégg maa koy soog a commencé dégg nii. <laughs> maman tur euh, ah, <laughs> neex na ma trop macha allah. maman nga def teew def sañse macha daal ñëw euh, wuy si ki nga xamante ni moom moo di Mara Thiam loo ñu mën a seddal ci moom. lu ma mën ci Mara du bëri parce que je ne connais pas Mara bien mais je suis là euh, au nom de ma petite sœur Alimatou qui fait partie des marraines loolu moom moo tax ma ñëw ah. c'est bien également qu'elle nous donne son impression par rapport à l'organisation de ce soir et euh, idée bi nga xam ne moom moo organiser événement bi comme ñëw na fi. voilà idée idée événement bi 72 bien sûr Euh, def li nga xamante ni euh, dafay wane ni Pikine c'est la pikinité wane ni Pikine ay xale yu baax ñoo fi nekk ay xale yu am jom bëgg liggéey mën li ñuy def loolu noo ko gisee. Euh, macha allah je confirme parce que li nga wax rek Pikine y a des jeunes yoo xamante ni positivement la ñuy marché ñu leen di ñaanal aussi ñu jam ci kanam organisation bi 112 heures il a osé le faire on le félicite di ñaan yàlla aussi. ces trois ans d'anniversaire euh, soit des années qu'il le fait pour des années euh, ñu koy féliciter encore di ko ñaanal di wax ne Pikine y des jeunes yoo xamante ni optimiste la ñuy demee ñu leen di ñaanal rek bonne réussite euh, Zézé. macha allah xam nga maman li mu wax lan moo ci lan moo ma ci frappé. Euh, il a osé. surtout. Mara il a osé. surtout. ñaata jeunes ñoo fi nekk te defuñu 72 heures. man maa ngi nii un <laughs> waaye wuy ma yi ngay def arrangé wu ma nekkati leneen nekkati leneen. ñu déggee ay moromam ñu déggee ko noonu ci doole Muhammad Rasulullah ndax su boobaa du ma génn. xam naa ne lu mu am rek maa tax buy sonn maa tax koñ bi moom dama leen di gërëm di leen sant di ci jiital jiital Père Zora. tàccu leen ma ko bu baax a baax s'il vous plaît Père Zora. Père Zora. <laughs> peeru ñépp la li mu jur ak liñ ko jural kenn mën leen a ne jom ju nekk ci sama doom rek ci moom la jógee jabaram sama xarit la benn bakkan amuñu benn intermédiaire ak mais Père Zora dafa bëgg Mara du Mara rek koñ bi lu fi tëgg rek Père Zora dem na ci ba jeex tàkk ñun jigéen ñi sax seetaanuñu seetaanuñu xale bu jigéen seetaanuñu xale bu ndaw macha allah moom it dama koy ñaanal yàlla ndax uh, ñaa uh, wax ju ëpp sax cat la waaye yàlla lañ koy bàyyeel rek lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp di gërëm it jabaram parce que mënoon naa yàq lu bari maaraa këram la dëkk ci kër kër ñi ñi la dëkk jigéen ñi fi toog ñépp ay jigéenu maaraa lañ ay xaritu maaraa lañ maa ngi leen di sant di leen gërëm di la sant ay Aïcha ndax ku bëgg sama doom ji bëgg yàlla na yàlla defal jàmm yéen ñépp waaw waaw te wax dëgg yàlla jantal moom. waaw ba suñu ba suñu jantal. wax nga bigi mais xale yi def ngeen jongo ma mais bigi bu téye mais caar caar. mais Marigo final la. Nder demal waaw Nder. xam nga. waaw. jantal. waaw. dafa woote. waaw 72 heures lañ koy wax. waaw 72 heures. waaw waaw ñu si décembre. waaw te décembre gi des na. mais Nder. waaw. 72 heures yëpp xew na fi. waaw waaye 72 heures bi tëj 72 heures yi. <laughs> waaw bint si kanam. 31 décembre ci. lay lay la la ay la cay ay xala ya ay ay xala ya ya préparé 31 décembre. lay lay la fas yéenee solu sañse waaw taali pétaal waaw waaye nag ndeer xam nga lan moom ma métti si bés bi waaw xale yi saa ñu si taalu pétaal rek duñ ca yam waaye duñ ca yam dañuy taali pétaal dem sa néeg ba ah. waaye Nder. waaw. xale yu góor yi. xam nga Nder. waaw. ab xale bu góor du ñëw dóor yi martu. waaw dem si ciment bee. waaw. dóor yi martu ba loxoom yëpp noor. waaw. mu ànd ak puupaleem dem sa bigit ba. waaw cosmétique ba. waaw jëndal ko sipp. waaw wala mu jëndal ko robb. ànd moom taalibe waaw eh fay ay la waaye xale ba day fay. waaw. yóbbu na ko sa néeg ba. waaw der eh, eh. eh. waaw xolloon na ko en haut der luy en haut ah, laajaale ah? ah, en haut en haut en haut waaw duma na ko waaw cim ma ngi koy dóor mm-hmm. après décembre ndeer la fay xew lan ban la ñuy dugg après décembre janvier après janvier mois de janvier après mois de janvier avril ah après janvier février février waaw après février novembre nder waaw trois mois après waaw xale bu jigéen bi commencé waaw yaa ñëwoo ko waa Kine ba Kine lan la ah dama décembre gala waaw ay waay décembre xale yu jigéen yi protéger leen mm-hmm. protéger leen. waaw waaye xale yu góor ñi nay neex rek. waaw ñoom nay neex. ak ñoo bëgg Adja. ci Adja am valeur. yàlla naa siiw na Adja. Adja am valeur. ay waay Adja am valeur. mi bëggee mi bëgg bu tee. Sall Pape Matar Seye expliqué. waaw. intellectuel. ndeysaan. kenn du Pape Matar waaw waaw. ca français ya. ndeysaan. mais qu'est-ce que c'est que laa lay expliqué. dëgg la xam naa ko bu ca ay waxam ay waay qu'est-ce qu'est-ce que c'est paa boobu mooy paa boo xamante ne ab géwël la mais intellectuel la. dafa jàng ba naan ay këyitam. ndeysaan Pape Matar Seye. waaw. Senghor da koo wóolu. ndeysaan ca pare. waaw ndeysaan booba Senghor. waaw. gagné na premier mandat. ñu def deuxième tour. ndeysaan mu war a def deuxième mandat waaw mu woolu Pape Matar Seye si mi leen wool leen ma Pape Matar Seye oh sala ñu woo Pape Matar Seye waaw ndeer Pape Matar Seye di jaaga jaagare ndeysaan ñu lala ko tapis rouge oh bi ne laleelee Pape Matar Seye tapis rouge waaw mu war a dugg peut-être fii nu mu tudd pare pare mag kii euh, Senghor accueillir ko ndeysaan bi ka Senghor acquitté toog ak moom waxtaan ak moom ci français ndeysaan ni ko c'est l'histoire toi eh. devant hier oh déggul français parce que je l'aime je l'aime beaucoup oh. que ma contacté les Pape Matar Seye pour mu jàppale ma ko Senghor Papa Tassé ni ko dégg naa la uh-huh. nan dégg naa la écoute bien oh. mu ne ko danga jàppale uh-huh. ko aux conditions am na ñoo xamante ne maa leen jàppale waaye si kaw ma jàppale la uh-huh. Papa Tassé xoo heure ni seconde waaw quelle heure de ah telle heure danaa daligé. mais Nder mooy lan ci français. ndax heure añ jot na. ay waay Pape Matar Seye yàlla na ko yàlla yërëm. taxaare ko a amiin waaye Nder. waaw ba la ñoo génn foofu. waaw bay génn. waaw dañuy mën a benn histoire bu ndaw rek. Mhm. bii. waaw. ab benn waay la. waaw waa ji màggal daal de six mois mu commencé tàggoo. fu mu romb rek ñu ne mais sama gars mais yeneen a ngi waajal màggal Touba bi boo nee ko bu sooba yàlla bu Touba bu sooba fan ñun ay murid lañu dund dem Touba bu ñu dewee dañuy def si kees gi yóbbu ñu Touba éco bi màggal gi des 6 mois. waaw mu commencé accélérer tàggoo bi màggal gi des 2 mois. waaw waa ji gën a commencé accélérer fu mu room ne la eh mais Baye Fall mais sa nday mais yéen a ngi waajal màggal Touba ah. ndeysaan boo nee ko bu sooba yàlla fan ñun ay murid lañu. bu ñu deewee dañuy dem Touba. bu ñuy dund dañuy dem Touba. ndeysaan màggal gi des deux jours ñu romance ko. ah màggal gi ko. après màggal. waaw deux jours ñu bàyyi ko. léegi Sam jàmbaar ji boo ko rombee ne ko Baye Fall. yaa ngi waajal màggal gi mën la. bu soobee yàlla ak police. ah kay. Sara. <laughs> waaw Nder. ki ab benn Baye nettali. waaw maa ngi susu nettali ba léegi. waaw ki ab benn la woon. Uh-huh. Baye du ñëw ba ci jaaykatu kafe bi nu ko soxna si jox ko fukki dërëm ni ko jaay ma café soxna si jël kafe jox ko mu naan xool soxna si ni ko tàggul tàkk si kawam waaye tàggale lii tàggul waaye ñun xoolal ñun faal lañu waaye tàggale lii soxna si ni ko sama càmmeñ jëru histoire mhm. jox ma ma tàngal soxna si jël dem gopp mandiaare yi gopp mandiaare yi gaasi ñëw indi ko tàngal kafe gi tàngal la tàngal la tàngal la tàngal ba kafe gi moom mënatoo gis kafe gi nax ngeer xel jox ko bàyyi faa benn yi mais soxna si mais ak tàngoor bi gis ko mais tàngale lii xoolal ñun Madina Fall la dëkk bëgg néeg maam Cheikh Assane Fall ñun xoolal ay Baye Fall la lu tàngale lii lu mu gën a tàng xoolal mu gën a ba tàngul soxna ñu ko jaru xuloo waaw waaw ina ma tàngalal ko dem sa pàkk këriñ ba jënd fa 1500 mat 500 mat. 1500 mat. 500 mat 500 mat ñoo indi. tàngoor koo tàngala tàngala tàngala tàngala ba café gi moom mënu doo gis café gi doo gis tax café gi jox ko ba bi jékki-jékki la rasa taxaw soxna si xool ko lu ko sama càmmeñ tàng na wala tàngoor mun ko tàng na kay waaye li si kaw laa bëgg mu wàcc ci lay lay la ah, si se sadi bu tabax si se lay way mbokkum yaay maam as bor tabax position xadi beri jiri ibu jaala nay arab bebe ade momi ashir amir mawla moom naana léegi l'international la borom Ziguinchor ah gars yi maa ngi leen di ziar di jël may ma tuuti di lay rek maa ngi nuyu Omaro suma mag kontaan naa trop ci fekk la fi tey di nuyu sama papa Mansour maa ngi lay ziar bu wér-wér di nuyu ñëpp ñu ngi fi fekk. jantal moom suñu jantal la rek jantal Mara dafa baax oto bu xew xewlee dañuy bàyyi lépp def teew ñëw def suñu participation maa ngi ñaan nag yàlla gën a taaral bis bi ci daraje seen Fallou waaw parce que baaba ku ne xam na talentam suma xarit suma doomu ndey tey moo fi war a toj kon ñu koy ñaanal moom carrière bu càmm ndax xol bi dafa rafet ma leen ñaan ngeen tàccu jantal maara bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ku mu ci tàccu jantal maara yàlla na la Seydina Mouhamed tàcc yow ma xiyaam ndóob tegal ma foofu benn affaire bu ndaw rek lu ndaw rek lu ndaw rek gars yi ñu dem TikTok ah alalakema guru gobi yeah yeah yeah modol alala keyi alala kewa gobi yeah yeah yeah <laughs> sangub sama réew baa ngi nii dama laa bëgg loolu dama laa bëgg loolu Mansour Sede moom ma way sangub góor ñaa ngi noonu mooy Cheikh Saliou Mbacké Bambay baayam bara sawdi yee ma ko jaral ay waay dama laa fonk lool ba tax ma jaaga may sa joor may xamu fu la nga noon di jaar man soos jërëjëf maam Seex Mbay mi moomu maam Seex ala ali ji demee DJ alors voilà amis chers invités jàpp leen ni moment bi ñu toll c'est le moment bi nga xamante ni Mansour dafa def ay valeur ak ay culture ci moom Aïcha kooku moom mooy kan ak ki ñuy accueillir comme il est là. bu àndandoo suñu daanaan àndandoo suñu xalaat bi. sama jantal bi. mooy jantal Mara. jantal Mara la voix de Koulibaly. l'incontestable. l'incontestable. le général. le général. le maréchal. le maréchal. le caporal. le caporal. jantal Mara. mesdames, mesdemoiselles, messieurs. dama bëgg ngeen bàyyi xel bu baax a baax xale yooyu. jantal Mara sera en compagnie de papa. merci.

mbaam bi jaam way naa Alaaji Muse Paate Mbay di ko mën mooy mën mooy mën daal ba sikk ngay ja baay ak baaba baay sama jaar ay sama baay Loxo yi Thank you. chanté comme que ñuy si live bi moo tax mais maa ngi kontaan ci suma papa yi bu baax alaaji monsieur Pathé Mbaye surprise la tey ci ñun mu toog ñun ñuy joué ndax sa doom bi ñaan ak moom ak léegi yàgg na sama yaay laal la yaakaar naa ni moom moo yar nabu naana ak sama papa Zoro Mbaye ma jaaga mi nga xam ne personnalité rek ngay gis ci moom Aziz suma mag ak tonton yooyu dafa doon nekk Mara nga def ko ku tàcc jantal Mara wala nga fekk déwén ey monsieur Pate May su ma bàyyi bi jore bay ma jàng may sa jooro xale bi lii mu def cuune mënu ko mais lu tax tàcc woo leen lii mbaa jàmm la wala soxor la PDG ama doomu Cheikh Béthio lii xale bi def projet def ko muy ay millions yu bari doomi garmi moo ko mën a def mu ne Abdou Aziz Ndiaye benn idole rek laa am muy Jola ma jaaga may sa joor moo ma solution osé géwél du ma yàpp de six heures du matin laay xëy dem xëy mais maanaam li nga def ey cuune mënu ko waa doole ku sa ne lu may doo tala xarani bañ dina ba baax mais maanaam li nga def wootee ci kanam bay bi woon livre bi dinañ xam ne yow sa apprenti ci Pikine bu ko doon jaay dina la coof ko wax jooy ndax sama xol dafa sedd xale bi ngay woyal téer ci biir téer yi xale bi ngay woyal fii ci réew mi ndaanaan nga e booy ay ci salaamaaleykum képp koo xamante ni yaa ngi toog di nuyoo bu baax a baax a baax di am mbégte wallaahi suma xol dafa sedd bi ma dugg si dama tuur ay rangoon dama jooy yàlla sedda ni dama am fit rek di tegi table yi waaye yaakaaruma woon ni sax dina mag juróomi table yi ñu toog ndax c'est pas évident pour une première fois nga organiser lu mel ni ko Aziz wax ni muy ay millions yu bari nga def ko waaye li ñuy wax suuf bu sukkandee dañ koo jàll te bu ñemee dañ laa diri olof day faral di wax ni xéewal te sàkket da cay taru man oomalu tukki barke Sëriñ Bamba sama papa ji oomalu kooku damaa bëgg ñëpp ñu tàcc ko ndax mbir buy door day am ñu naan waaw am ñu ne déet keroog ba mu bëggee nekk animateur moom laa njëkk seeti ne ko papa damaa bëgg a def télé ak rajo mu ne ma Boubacar Diallo Pape Cheikh Diallo gëm seen bopp tax ñu yegg fi ñu yegg soo gëmee sa bopp di nga yegg fi ñu yegg ma nekk ci loolu te rëccuwuma ko benn yoon keroog bi ma si mbéy ñi ci njëkk waxtaanal xëy na bu ma leen déglu woon ko def ndax damaa wax ba daanee ne damay féete sama trois ans de média ñu ne ma yow Pape Cheikh Diallo féetewul Boubacar Diallo féetewul Omaro sa féetewul ngay féete ma ne leen looloo jëf bi ma ñëw wax ak moom mu ne ma fit boo amee fit rek def ko kon lii bu amee tey moom la tàccu leen ko bu baax sedd suñu xool barki Serigne Touba yàlla nañ ko def at yu bare baree baree bari di sant képp ku ci suma mag barki Serigne Bamba bàyyi naa rek Serigne Saliou Sall Sénégal ku ñemewul doo dem yàlla dong fi dëkk Youssou Ndour dafa woy benn woy mais bàyyiwu ci xel nee na c'est l'homme qui a y a rien y rien réew dara amu fi gëmal sa bopp xam yaay kan yàlla teral la par force yàlla moo bëgg yàlla li mu yor Omar mayewu ko saraxewu ko leblewu ko da koy jaay man tëkkër sabar laa woon man parce que Seydina Mohamed tey tëkkër sabar yëpp samay xarit nañu dañuy ñëw di ma seet si kii di monsieur Pathé Mbaye ku ne xam na coon sekk di sama jumo tëkkër sabar la woon tey boo demee këram di xam kan mooy tuub kon leen xam ni wërsëg nekkul ci kenn yàllaa ko moom mooy xool ku ko neex mu jox ko ko te yow da nga am lu doy waar Omaro sa ndey ja toog yaasin guerrier ak Seydina Muhammad man xam nga la lay faawe nit liggéey sa baay bii xool ko photographe la nit soo bëggee tàkk wala nga dem da ngay xool liy yóbbu nit muy jom ak fit nga taxaw ja su boobaa lu sa morom am di ko te yow nag sama doomu bopp doon sama ko ay jikko mooy guerrier mooy guerrier nga du dellu ginnaaw te it fii nga ko defee fii la bu amoon benn taabal sax man dinaa ci toog man kenn mosuma gis ma fecc maa jug fecc xam nga lu tax ma fecc baaba sama xol moom fees dal sama doom di way sama doomu organisé samay doom taxaw ñi baax ñi ñëw wuy si la su ma jugul honoré bés bi man du ma gor yàlla na la yàlla jàppale te barke Seydina Mohamed di nga yóbbu sa lay màkk di nga yóbbu sa bay nga dawal ci oto yu baax yi di nga am kër yu baax yi te Omaro mu Cheikh ba ñoo xam ne li ma ko wax Omaro di danga daan way te yaa ngi ne na moo dara daje nañu yi daje nañu fu nekk nag yow dara mayu la ko dul fit kon gën la jàpp te gëm gën sa baay teg ci yoon ëllëg di nga am loo xam ne bu sooba yàlla dina weesu sa njort sama doom gi nag dama koy ñaan moom mu raw waykat yëpp bu sooba yàlla dina am ak Omaro mbooloo mi dama bëgg ngeen tàccul ma suma papa Père Zora tàttu ma ko bu baax a baax baax te yàlla rek a tax Père sama xol sedd na yàlla nga dund yàlla nga wér yow fierté nga ci ñun nii nga ko waxee rek la demee fu ne ci àdduna dege nañu fa restaurant bu mag bu ci Europe naan na nañ fa kafe toog waxtaan Allemagne Belgique France fu ne te fu nu ma sa toog rek li nga may wax mooy fils maa la naam nga dama fi nga dëgg foofu la gën bës amul dellu ginnaaw foncé loolu nga may conseillé nag moom ngay conseil xale yëpp ku la yàlla booleel rek waxuma sax tey ci Pikine waaye Sénégal fu nit ku baax nekk rek jox na la bopp te li nga koy wax mi ngi koy dégg mi ngi koy jariñ dama lay ñaanal papa yàlla nga tudd suñu fierté nga sunu sakk nga sunu ndam nga sunu xol bu sedd nga yow fu nu la gis dañuy fier dañuy sax man sa doom laa ba noppi di sa fan saak bi nga jógee di fecc sama doom jéem émission mën na maa maa ngi koy woo naan ko xoolal ma sama papa jantal la gërëyee la parce que man dama bëgg jantal paa te gërëyee nga jantal paa nga yàlla sa jàmm yàgg tàttule ma sama papa Père yàlla sa jàmm yàgg si Samaria maa ngi lay ñaanal nga dund te nga wér Aïcha animatrice 7TV yàlla sa jàmm yàgg yàlla nga dund yàlla nga wér Abdoul Aziz géwél bu silwisee yow loo dund doyul yàlla sa jàmm yàgg mbooloo mi nag dafa am ñaari baat rek yu ma bëgg a wax ci ndeysaan le jeune animateur nu mu tuddati Zézé macha allah macha allah xale bu am talent xale bu am talent te dégg tubaab yal na yàlla yeggali yal na yàlla yeggali mon frère. Mara da nga woote bis bu toll nii ma ne ma yaay sama idole yaay suma référence yaa ma bëgg télé. dama laa bëgg sargal ndax damay def sama trois ans d'animation te dama bëgg nga ñëw ma sargal la ndax suma paree d'honneur bi ci taxawaay day daanaka neexoon nanu te ci at day jàpp naa ne tolloo nanu kon waroon na fee mën a bañ a ne rawatina ci jamono ji nga xam ne xale yi dañuy tegaate bët ak di fiiraate ka di fi yëf li xale bi wax ci man waroon naa mën a bañ a ne waaye nag man damay as góor Cheikh Béye Faye Samb sëriñ ku ma ko timbax mari mbax la ko maanaam yor naa ay junni yu ma la may mais duma la ko jox parce que danga koy fayee ay sées baa nga lekk ko mu jeex balaa gannaaw suba bu ma la woowee na la maanaam dama soxla mën nga ko bañ jox dama lay teg ci barab ngay ami junni di terale barki Cheikh Salim Mbacke mi ma yaakaar dama lay teg ci barab ngay ami junni di terale Père Zola suma bàyyi la xam na ma Abdoul Aziz Diol bu service suma mag la suma xarit la xam na ma du ma waxantu te lu ma wax dinaa ko def télévision bu mag boobu ma nekk muy 2STV yi jàppal ne bëgg nga tey barke Cheikh Saliou Mbacke mi ma yaakaar àddina ak laaxira déedéet bu jooy bu jooy bu jooy taxawal jàppal ni dugg nga tey barke bi ma toogee ci sa plateau ba lan laa la wax loo amul seenu dëkk barki démb dama dem ci foire bi kii def plateau mag set TV invité ma ma ñëw toog laaj ko dañ ma faa jël si yanu lañ ma def yanu jëlee ma fa yóbbu bi may dem la laa la wax maay capitaine fu ma ne dañ may jël si yaay bàyyil ma dem yàlla mooy dogal te yàlla pare na démb tey soog a ñëw foofu maa ko moom ci mbedd laay wax man xam nga man dama dul ñuy wax ci néeg ak di wax ci saal di man ci mbedd laay wax 2STV suma alal la suma patrimoine la juróom-ñaari nit nga fa di fa yeewoo maa leen fa dugal te wax ji soriwul yaay mënu ma naa mën na ko jëlal ndax daa man mu jël te yow dañ lay jël suba mën naa laa jox ay junni nga lekk ko waaye dama la yóbbu foofa teg la fa nga di fa liggéey di fa amee junni di tere sa bopp di tere say mbokk ak say waajur na waa Pikine waajal te xam ni seen doom ji dina wane boppam ci télévision bu mag boobu nga xam ne mooy la 2STV la télévision autrement ci lu gaaw Tézora lii ma la wax délai bi fukki fan la barke Cheikh Saliou Mbacké bi ma yaakaar dix jours dix jours nga taxaw ci antenne bi 31 décembre plateau spécial bi sañsal ba rafet te ñëw ma jox la micro bi annoncé la en bi de la 2STV yi ñëpp xam ne bokk nga ci kër gi si samaria ba di nga ko seetaan 31 décembre fu zéro heure jotee Mara dina sañ ba rafet ma jox ko micro kër gi rak lii laa lay defal xam nga bëgg nag nga fas jom te nga góorgóorlu affaire bi amul secret xam nga lan la gëm sa bopp nangoo liggéey président dafa wax lu am solo léegi ñun bi ñuy door ay waykat cant la ñu te ba tey moom la ñu ba tey dañuy yem ci cant yi dooy bàyyiwuñu way cant de ñoo ngi way cant ba tey waaye dañoo xam ne yaakaar gi réew mi am ci ñun ak suñuy mbokk ak suñuy waajur mënta génn ci baas ñu daal di bënd frontière yi wër Afrique wër Europe dugg Amérique fu ñu ko mën a xaree rek ñu xar ko fa dellu si waat boole koog nag investir suñu réew di jàppale suñu gëmal sa bopp kenn newu ci sa kanam yaa ne ci kanam kuy ñëw soog a ñëw dama ne gëmal sa bopp kenn newul ci sa kanam yow yaa ne ci sa kanam kuy ñëw soog a ñëw te nga doxal te nga xam ne affaire bi asamaan la jarul buuxante jarul rayante jarul xiiroo jarul ngaayoo ku ci ne man ngaa ne fa nga ne di ko boyal muy boy te doo yàqal sa morom maa ngi sa ginnaaw je suis de tout cœur avec toi. Thank you. Thank you. àggee boole naa la ak diw na la jox transport leer na gars yi ma àndaloon may bëgg ci yow trop nag di la nag waa 2S nañu waa ñi njool taalibi Sëñ Tuubaa la kenn weneen teew ko borom bokk jëf ay seem nag moo jël coupe bi dem moom dem Pikine na barki borom ndigal ay ca Bamba